baax di leen di sant yàlla tey fii ñu teew tey ci arène nationale li nu fi ndi nag mooy waajal bisu le quinze ci bis bi nga xam ne moom mooy Zarko Ada Fass kii ko tëgg di Pape Abdou Fall di Paf production de nit koo xam ne ku ne ku ne xam ne digganteem ak làmb li may wax rek bi mu ñëwee ci làmb dafa yokk waaye wàññiwul nekk nit kuy dégloo nit koo xam ne kenn ku ne dina jox noppam taataan sa xalaat boo rek li mu yor mën koo jëfee ñi ngi ñaan bisam bi yàlla nañ ndam. yàlla na ci am réussite totale yàlla bu ñu ci am benn ndog-ndog yàlla na ci dugg ak ba génn ci ak siin ci barke Seydouna Mohamed tey ñu ñëwoon nag doon def ñëw sécurité parce que ku xam ne làmb jooju xam ne làmb làmb la joo xam ne làmb ju ànd ak bruit la parce que ñaari mbër yéen i toll waaye li ci war a xew lépp Pape Abdou Fall waxtaan na ak waa CNG ak police ak ñi mbokk liggéey bi tey ñu war a taataan ay kàddu lan lañ doon waxtaan ak lan la jëm ci bisu le 15 Pape ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu seet ñu yóbbu ñu lay maa ngi leen di euh, yéen ñi fi teew yëpp. di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi waaw di leen déglu. ndax mën na noo xam tey lu sabab ndaje bi tey. waaw ndaje mi moom CNG moo ñu invité woon benn ndaje ñun ak euh, manageru mbër yi ak la police les sapeurs donc ñu toog waxtaan ci la conduite bi nga xam ni moom la ñu war a am pour la bonne réussite de l'événement euh, alhamdulilahi rabbil alamin euh, waxtaan nañu je pense que partie yi fi toogoon yëpp discuter nañu di manière responsable afin que chacun puisse jouer sa partition ba ñu dugg ci ci bismillahi rahmani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin comme li may wax fii benn làmb mënuñu fi jaaxal lu ne am am na fi lu ne fekk nañu fi lu ne def nañ ko fi lu ne dund nañ ko fi pour man bu tegoo ci yoon sax réunion sécuritaire sax warta am parce que ay millions fu muy dugg je pense que li ñu war a njëkk a jiital mooy xel yi ak xalaat yi donc n'empêche rôle CNG la mu convoqué ñu te bu ñu woowee ñun ak manager yi dañuy ñëw police ñëw na sapeur ñëw na waxtaan nañu ci nan la ñu war a mën a taxawee ci bis bi ba mu jàll ci jàmm ak salaam en namo et en aval nangul nañ leen ko mais foofu damay rebondir toujours ci mbër yi euh, di wax le Tyson waxoon làmb pour man ñu ñuy fay ay millions war nañu mun a taxaw sax arbitrer seen bopp mu rafet parce que ay millions du caaxaan ku dem bay laal ay millions rek je pense que d'abord tu es adulte tu es responsable et que tu dois jouir de toutes tes facultés xam nga lu baax xam nga lu bon xam nga lu ñu war a def ak lu ñu warut a def mais nag xëy na. exigence la que mu am euh, arbitrage te suñu arbitre ñun promoteurs yi ak mbër yi seen CNG la. ñu ngi gërëm président Bira Sène Maysa Ndiaye Cheikh Sarr ñoom ñam ñëpp ñu ngi fi woon waxtaan nañu te yaakaar naa ni. manager yi fi jóge bu ñu demee dina ñu rendre compte fidèlement la ñuy xaar ci Zarko ak la ñuy xaar ci Ada Fass parce que seen fans club yi ñu ngi fi woon it toog nañu waxtaan nañu ak ñoom ñun sport la ne newuñu guerre wootewuñu guerre wootewuñu fitna ci réew mi ay xale lañu ñu gis ni war nañu mën a ànd daje ñu organiser fay leen ay millions ñu war ñëw bëre ci discipline ñu war ko mën a organiser ci discipline te it loolu la ñuy xaar ci ñoom ñu jàppale ñu ci. amuñu benn leçon bu ñu leen war a mën a jox du dëgg parce que xam nañu xàmme nañ xam nañu lu baax xam nañ lu bon kon nañ ñu dimbali de grâce jox nañ leen point focal muy Zarko di aada police nee na bu ñu demee ba réunion su ngoonee nañ leen woo wax leen ban heure la ñuy départ police dana leen jël dugal leen ba ci biir stade bi al toppe yi nag nañu xam ni képp ku ci wàcceeg yoon hmm, doo laal suuf du dëgg te it dinañ jël matuwaay yëpp fii ba Grand Yoff ba Fass ba yegsi ci biir stade bi lépp lu mu laaj danañ ko teg pour une bonne sécurité ñi ñëw seetaan si ci jàmm ñibbi ci jàmm làmb ji am ci jàmm. Euh, wàllu guddee bi ñu gis làmb yi mujj am xaw na guddee épp itam loolu lan nga ci mën a indi ci ay leeral gën a dalal xelu nit ñi pour mu teel a jeex kenn ku di ñibbi sa kër. waxtaan nañu ci. am na disposition yu CNG yëkkati jox nañu ko ñun ñu téye ko téye nañu ko liir nañu ko jàngat nañu ko waxtaan nañu ci incha allahu rabbi charte yi nga xam ni fekk nañu ko fii ba waxtaan nañu ci ak président Bira Sène ak euh, comment ça s'appelle euh, ak euh, Maysa Ndiaye ak ñoom Cheikh Sarr yëpp yaakaar naa ni li ñu waxtaane fii bu fekkee nii ñi nga xam ni ñoo ñëw teew ay responsable bu ñu restituer décision yi nga xam ne jël nañu ko fii làmb war te mën guddee incha allah danañu def tout ba ñaari mbër yu mag yi balaa dix-huit ou bien au plus tard dix-huit heures ñoom ñëpp dinañu tuus du dëgg temps de préparation bi CNG dina jël ay responsabilités wàññi ko bali amoon du amaat te it du lu gën làmb pour que nit ñi gën ci sawar investisseurs yi gën ci sawar partenaires yi muy sponsor yooyu il faut que ñu jéem ko calibrer jéem ko gérer mais télé yuy def direct pendant quatre heures de temps mais amul fenn loolu du développement donc nous sommes responsables nous sommes conscients je pense qu'on doit se servir hein, de notre conscience pour mieux exécuter hein, ce que ce qui est de nos responsabilités. mën nañoo xam làmb ju toll nii ñaata gémi <laughs> rek nga gis du dëgg mais li ñu prévoir ci ñi nga xam ni du ñu sol ci réunion bi moo ëpp sax li nga xam ni mooy sol tenue ñii sol dañuy ñëw rek ci pour tour biir stade bi wala nangam ak nangam mais mën naa la ni li dul sol moo ëpp ci li ñu prévoir diggante euh, centrale Pikine Parcelles ak euh, Guédiawaye ci police ak ba commissariat central li ñu prévoir ak Médina ak Grand Yoff ñun ñëpp dañu leen mobiliser donc jël nañu suñu matuwaay yëpp en amont et en aval pour que képp koo xam ni war nga mën a ñëw bëgg nga seetaan si nga ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm ak salaam. bis bu mag la lu ñuy xaar ci PAF production ci wàllu culture ndax c'est la fête. c'est toujours la fête la vie quand on a la vie on a la fête voilà donc euh, ça c'est c'est la philosophie li ci des nag c'est du contenu euh, ku xam PAF production xam ni. suñu bis incha allahu rabbi du ñu ménager aucun effort pour une belle réussite euh, li ci des nag c'est une question de découverte et vous nous laissez la primeur de vous l'offrir waaw tiire nañu ko defa naa ni Ada Fass Ada Fass mu ngi bee defe naa ni Zarko mu ngi A loolu tiire nañu ko donc pour rek jël ay matuwaay def nañu loolu lépp ba ku nekk daal boo dikkee affaire bi yomb waaw. waaw kooku nag El Hadj Fallou mooy wax ci problème accréditation yi je pense que moom jël moom ak moor jël nañu ay dispositions par rapport ak accréditation yi. bu dëgg mais li ma mën a wax rek mooy képp koo xam ne liggéeyoo ci journée bi. yaa ngi dégg ñun duñ la jox suñu accréditation ku ñu jàppalewul waroo laaj accréditation te it on fera notre maximum ba cambal cambal li nga xam ne doon na am fii doo fi am loolu moom dañuy jël suñu ay matuwaay dina am quelque yoo xam ni sélectionné nañu leen duñu leen xañ dara parce que it suñu ay partenaire ngeen dañuy ànd di jàppalante mais nañu jàppalante ci dëgg ci yoon et ku nekk gis ci seen bopp donc mi képp koo xam ni jàppale wuñu de grâce jarul sax ngay sonn parce que ci làmb ji lañu nekk même suñu président lit à distance on suit on contrôle tout tey dañuy jël suñu ay responsabilité beneen bi ma ciy rajouté mooy Ada Fass suba la open press am incha allahu rabbi suba euh, dina nekk en direct sur ITV suba zar suba le jeudi ah à 17 vendredi Ada Fass ak Zarko dañu waroon def démb ñoom suba ñoom ñëpp ah mais def naa ni Zarko moom dekkale na incha allah ajjuma moom itam à 17h loolu daal defe naa ni. bon man xam nga euh, man Pape Abdou Fall man li may jàpp mooy làmb làmb la. acteur acteur la bi may tëgg làmb cent millions wala cent et quelques million di ko fay benn mbër booba dafa am loo xam ne noonu la demee woon arène bi dafa pare woon y avait un challenge donc bi ma jëlee kàddu bi ma paree ak borom réew mi ñu jàppante suñu loxo mu ni ma woon foog nga jàpp ci donc loolu moo ñu dugaloon ci loolu mais man ba bi Alioune Gueye mën na ma seede ba bi ñuy defar arène nationale di def pose première pierre bi man loolu mosuma ci dugg à un moment donné aussi promoteur yëpp dañu demoon man ku ma xam xam ni homme de défi la mais je ne suis pas fixe sur des barèmes yoo xam ni damay fay nii ci fii dynamique ciage bii laay nekk wala duma fi nekk lépp loo xam ne rek PAF production ak staffam gis nañu ni jugé nañu utile ni sénégalais soxla nañu ko tey suñu moyen may nañu ko ñu daal di koy def incha allahu yi danañ ko def mais man bokkuma ci promoteur yoo xam ne dañuy dëbb ndox man du ma fi nekk pour faire plaisir à Massamba ak ma Demba naan damay dugg ci komba boo xam ne bu ëllëgee su may naan ay paracétamol la kii ay euh, affaire gan warul sama frair moo frère mon ami Alaaji Sidi waaw ak euh, Alaaji Sidi Jaxate maa ngi koy nuyu di ko wax nag na waaj grand mbubb yi na ñëw jóge cees daal di ñëw donc man dugguma ci gaam yooyu man dama bëgg fu ma tëdd nelaw lu ma dugg naa ko mën lu ma wax def ko ça c'est loolu loolu mooy sama marque. avant rendez-vous gis nañ ni euh, euh, souvent xeexi ci bunt bi lay am. est-ce que détantal mbëri ko ci a jaar parce que des fois mbëri daje ci bunt bi coow li foofu lay amee biir stade amul problème mais buntu stade est-ce que mbëri kii fii ngay jaar fii ngay jaar gënul woon. xam nga nag man dama xaw damay nit koo xam ni. damay wax li nga xam ni sama domaine de compétence ci la ci euh, ci loolu la man xam nga lu ma mën organiser combat fay mbër yi joxe frais d'organisation leneen li ci des ça incombe au CNG au service de sécurité et je la tiens là. tàggatoo. gërëm ki nga tuddee dara. quelqu'un ah. muy sa di sa doomu ndey ki nga dolli ci di cër ko jox. ci di sama seex. ak ci maman yu mu ko tuddee. maman dolli ci di sama seex. lu mu xam wax ma lu ma xam wax ñuy ànd mu bëgg ma ma bëgg ko mu jàpp ma ma jàpp ko mu gëm ma ma gëm ko nit ku baax sénégalais la jullit la ku am yërmande nit ku am jom nit ku bëgg réewam nit ku bëgg président Macky Sall nit ku am yërmande ci doomu aadama durant magistère am yëpp musuma ko tudde làmb xamul tax ku ko tudde làmb mën nga ko tudde moo tax sama première signature Adafa Zarko man leen ñëwuma fi en tant que promoteur dama fi ñëw en tant que représenté parrain bi muy El Hadji Ba euh, Matar damay ne tuddewuma ko sax làmb sama dama jël sama lépp daal di koy jox xamul tax dafa jox boppam Sénégal ba mu jeex tàkk dafa am lu bari lu ma fekkee ci làmb loo xam ni Matar sonn na ci def na ko Matar defal na lu ne làmb taxawu na ku ne ci làmb lijjanti na lu ne ci làmb jàppale na ku ne ci làmb bu ñu paree ci loolu Matar def na lu ne ci football taxaw na football fu ne taxaw na président Macky Sall ci lu ne ba yàlla def mu indil ñu Coupe d'Afrique ku mel noonu bu yàlla defee ngeen nekk di lijjanteendoo di jugandoo di defandoo lu ne yàlla def ba ñu changé ko du post wala président xëcc ko ne ko kaay indi sama wet comme ni ñuy defal pot d'honneur ay ministre ay euh, service de sécurité yi ak yeneen ak yeneen ak yooyu man sama pot d'honneur ak Matar Ba dimanche le quinze la muy Zarko aada Fass muy pot d'honneur boo xam ne ci sama xol laa ko bi te incha allah bu ñu yàlla dimbalee ba dimanche dana xam ni coono du réer. làmb na mën na ko bu nan xaar présence am kon. mi lu raw présence am dama lay wax lu raw présence am moom dafa décaler mission pour mën a teew dimanche incha allah kon xam nga ne loolu ñor na ko nit ku baax la jullit la te nit ku am ngëm-ngëm la yàlla na ko yàlla jàppale waaw mais nag slogan bi slogan lamb bi mooy coono du réer boroomam coono du ah. waaw Fadel ñu ngi lay nuyu di nuyu Fallou waa di rafet lu baax seen liggéey waaw di nuyu tamit euh, Fallou njaay wax dëgg yàlla boobu ba léegi ak fàllu ñoo si ne di bay suñu si journée Ada Fass Zarko waaw di na boo xam tamit làmb ju am solo la moment bii nii coow li bari si trop diggante Ada Fass ak Zarko ñaari mbëri tamit ñu fas yéene képp ku si daan balaa une semaine di jot ñu joxaat la avance te allah si loolu logique boobu la euh, Pa Abdou Fall nekk si la ñuy waxtaan boobu ba léegi waaw ñu ngi koy sant bu baax si confiance bi mu nu jox parce que tamit projet bu toll nii mu ne wax dëgg yàlla seen loxo laa ko teg ça veut ne mooy lu moom lijjantiwul dara xamul si làmb dara lépp maak Fallou Ndiaye ñoo koy coordonné ñooy yor communication ñooy yor lépp ça veut loolu confiance la moo tax dañ siy def ba def loo xam ne mënuñ ko si journée pour mu am réussite à 100 pour amateur yi. waaw di joxaat rendez amateur yëpp dimanche incha allah ku fi ñëw di nga dund spectacle di nga dund ambiance dinga nga dund tamit mbégte di wax gala xëy na Ada Fass Zarko la ñuy wax. mais Bébé Gouy Gui Tony Junior mooy ñaari mbër yoo xam kenn musul dégg muñal waaw booy pire waaw diggante ak bébé bismi jeex jaam mën na ne galaa la la dimanche incha allah ku fi ñëw dinga nga làmb dix grands combats la leen indil waa indil leen tamit benn combat boo xam ne day génnee stress muy onze combats loolu c'est la première fois mu am muy Pawlish Ñanku pour stress bi dindee ko si réew mi. ñi ñi ko ci benn combat boo xam ne tey jii instant bii mooy lëmb réew mi muy Giro Seras Abou Ndiassé waa giro Seras Abou Ndiassé mën nañ ne maa taxawal si sama labelu bopp di le 16 amaa na date bee xaw a sori sax moo tax lu si bëri defagun ko te tamit journée boobu incha allah galaa lay nekk galaa maanaam lépp ay grand combat lay premier combat ba Guiro Seras Abou Ndiassé ñëpp même niveau lay nekk. di wax dimanche waa ticket yi dimanche incha allah Zarko Ada Fass dañ ko yombal mën nañ ne ay supporters 2500 la amateur 5000 loge bi 10 000. ñu xam fu jamono toll ak combat yi leen indil de qualité instant yi may waxe yow mbëri ñu ngi njëkkante bi supporters yi ça veut dire dimanche ku fi ñëw di nga dundi événement bu mag a mag si laam incha allah. jaajëf moom jaajëf rek si yow.